tere yàlla bi tere bi la yàlla bokki julli di bokki daara yi bokki Sénégal bokki diaspora bi bokk yi nga xam ne yéen a ngi wétalikoo seen télévision Islam TV tey topp sen émission bi di Hablullah di émission bi yitte woo téere borom bi subhanahu wa taala ci biir télévision bi ci jàng ko jàngat ko génn ci njëriñ jéem koo jëriñoo bokk ak suñuy mbokk jullit di leen dokkeel bu baax a baax ci weeru koor gi tey ñaan borom bi subhanahu wa taala mu tawfiqal ñu ñu woor ko te màng lépp lu ci aw yiw mu fay nu ko te fulal nu ko yàlla nañ ko dugg ci jàmm jeexal ko ci jàmm yàlla nañ koor fekk fii déwén ak ay déwén yu bëree bëri eh, seen émission Hablullah ci Islam TV àllal bu nekk ci wax wi seen mbokk Abou Taha al makki wal madani eh, di leen ko indil seq ak eh, di ko seq jamono ju nekk al oustaz Mouhamadul Makhtar Sylla شيخ مختار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد نيجي لي نيو ني مبولم ني سيتان اسلام تي في راوتنا ايميشن بي تود حبل الله لين دوكال تي ويرو كور وي دي نيان الله سبحانه وتعالى مو ورسغل ني مبولم لي خيتي يو سي نيك ني مانكو تام نانغول ني دافال ني توفيق تي ايميشن يي دي ديف ييب يالا دافال دي ديغ ak top الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه yàlla yàlla bool defal ñu ko defal ko ñuy déglu ñëpp. baarakallahu fikum. jazakumullahu xayran Cheikh Makhtar koor gi ñëw na euh, nu war a jàngat ay tomb yoo xam ni ni ma ko waxee woon ci jotaay yi wees daa war a lëkkaloog weer wi waaye am ak lëkkaloo ak téere bi. Mm-hmm. ndax alquran karim daa am ak lëkkaloo bu baax ak weeru koor. Mm-hmm. yàgg dañ ko wax ci suñuy jotaay danañ ko gën a firndeel. bokk na ci lëkkaloo googu yi wala lëkkaloo googu yi Cheikh daa fees wala daa tàmbale ci asamaan. Mm-hmm. romb àdduna continuer ji àllaaxira balaaxira est-ce que est que ca asamaan borom bi subhaanahu wa taala moo junj ni bi muy wàccee alquran ca lawxul mahfuuz di ko indi ci asamaa dunia nga xam ni foofii la ko jibril doon fekk ca ndigalal boromam di fa jël lam ko jëlloo di ko jottali yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ba muy ba lool de am muy jóge ca asamaani àdduna asamaani ca lawxul mahfuuz kon di ñëw ci asamaani àdduna ci biir weeru koor la woon mm-hmm. برم جنجي كتي أي برب في القرآن الكريم جنجي نكتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والنني بالقرآن دي واتي تي لوح المحفوظ نيوتي أسماء الدنيا تي بي رمضان لون نيوتي تي دم بتا سورة الدخان مجنجي نيني تي بي رمضان جوجي تي قد قد بركة لون تي بي رمضان تي إنا أنزلناه في ليلة مباركة nga dox tuuti ba ca saari gone ya ca suratul qadri mu tayiinal la guddi gu barkel googu ta nek ci bir ramadan wax la wuturam dan inna anzalnahu fi lailatul qadr wàcc gogi kon moy wàccu ñum wa lépp alquran jóge ci xam xam borom ba ca lawxal mahfuz ñëw ci asmani aduna ci Cheikh Makhtar loola ci wéru kor la won kon lekkelo go fofu la tambalé fofu tambalé bu ñewé fi ci aduna lekkelo gi feeñaat ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy jot al alquranul karim saxaaba yi ñoo nettali ni bu koor masaana ñëw jibril day ñëw di nafar ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ba ci kooram gu mujj juróom-ñeenteelu koor gu yonente sallallahu alayhi ñaari yoon la nafar ak moom alquran ci koor est nga gis ni kon borom bi subhanahu wa daa taamoo jox ndigal jibril ci biir weeru koor ngir nafar jibril ak yonente bi sallallahu alayhi ak jibril alquran karim la nekk ci weer woowu mm-hmm. nga leen lëkkaloo ngoo kon kon ñu lëkkalewaat alquran ak koor ci nafar gi ko yonent bi doon nafar ak jàngalekatam bu mag boobu di jibril nga xam ne moo ko doon jëlee ci yàlla di ko indi mhm. lëkkaloog àdduna gàngoog Cheikh Maxtaar lëkkaloo googu daa wéy ba àllaaxira ndax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ci xadis ne ne ëllëg yowm lil abdi yowm alqiyaamati est-ce ak weeru koor dañuy tinul jaam bi ci boroomam ëllëg yowm alqiyaamati mhm. maanaam mënoon naa tudd alquran kese ne day tinu tudd weer koor kese ne day tinu tudd yeneen i jaamu yàlla ne dañuy tinu wala ay jëmm ne dañuy tinu mhm. waaye ni mu leen lëkkale ci xarit bi day wane seexoo ga nga seexoo woon ca asamaan moo dëkkul ba aljanna seexoo ko ci àdduna daa dëkkul ba àllaaxira ba aljanna kon loolu ak lëkkaloo la ko xam Cheikh Mokhtar alquran lëkkaloo na ko ak weeru koor ba tax na insha allahu tom bi ñu bëgg a jàngat dañu bëgg a jàngat ñi nga xam ne ñoom la alquran wàccoon ci ñoom ak ñooña ñi ñu yar ak ña topp seenu yoon ba sunu maam yii ñu leen tudd as-salafu saalih ginnaaw bi ñu xamee lëkkaloo googi ak dayo bi lëkkaloo gi am ñoom nan lañ daan dunde alquran waaye rawatina ci weeru koor as xaalu salafi ma alquran waaye ci ramadan Cheikh waxtaan lañ bëgg a jàngat gën taal ngay am ci laytaay googi ñu dugg ci waxtaan waaw Cheikh Mouhamed laytaay gi mhm. dafa leer naññi mhm. te mooy lëkkaloogu ramadan mhm. lëkkaloogu alquran am na ñaari xeeti lëkkaloo sax Mhm. Cheikh Mouhamed lëkkaloo googu mooy lëkkaloog xis yi waa almaanawi waaw te mooy bàyyi lii bu ko def waaw weer ko da ko nuru alquran dëgg la de <laughs> weer ko dañoo tere la ay mbir fajar ba jant so hmm. loolu da ko nuru alquran ñoom ñaar di teg di tere ay mbir di santaane ay mbir hmm. ànd gu ñu ànd noonu xam nga sax bi wax naan bi bi àndee ca ba wàcc ca ñu mujj wàccaat mi wàccaatee suñu andat ci weeru ko ñu koy nafar jullit ñëpp àndoo suñu ko def jullit ñëpp àndoo di nafar alxuraan ci weeru koor lu bare bare ba nëgëri mi am yemu fa wante mu ànd ak moom ba yowmal qiyaam xoolal lii xala al malaikatu tashfa wal anbiyaau yashfaun waaye yàlla dafa tànn ñaar ci ñi mbooloo mu bari moomu boole leen te boole leen ci genn genn tashfa daane alquranu wa ramadan yashfaani lil abdi waaye nag lil abdi <laughs> ki nangu ak njaamam diggante ak boromam ci def ndigal yi bàyyi tere bàyyi tere yi bu amee rëcc rëcc la ko nar a jafe alxuraan ak ramadaan ñoo ñoo dimbali ko ca kon Cheikh Mohamed laltaay boobu rek doyoon na ci wax alxuraan ramadaan la ñu lëkkaloo rawatina nag boo ñëwee ci asalafu saale nga xam ñoom mhm. dañoo dégg lëkkaloo gi mhm. dundal ko dëgg la dañ koo dégg dundal ko léegi boo ci accès boo leeral nii dañuy gën a xam ne alxuraan weeru koor ndekete ñoom ñaar moom daal cereeg soow duñ boole la boole naan mbaa boole tur segg du ko yomb segg ko yombut jërëjëf Cheikh Makhtar tom bi ñuy njëkkee mooy maarifatuhum manzilata alqurani wa makanatahu xam gu ñu xamoon dayob alquran ak place bi mu yor ci diine waaye yéegoon bu baaxit li tax a jug alquranul karim mhm. loolu bu ñu ko nattee ci asalfu sax da nga yëg na li leen yóbbu yoon loolu mooy nangu alquran nangu cofeel mhm. ak ngëm mhm. maanaam gëm yàlla gëm gu mat sopp ko sopp gu mat boo tax bi mu leen joxe ay waxam ñu nangu ko nangu goo xamante ni daa toll ak dayob alquran al karim ndax dañ koo aj ci jëmmi ka ko wax ka ko wax wallahi yàgg naa wax ni wax ju nekk day toll ni boroom mhm. alquran ni yàlla toll la toll est-ce que saxaaba yi ak asalafu saalih noonu lañ ko bàyyi woon xel looloo tax ñu xamoon dayob alquran lool lool dayeb alquran boobu ñu xamoon tax ñu doon làmbatu alquran ci wet gi ñu ko làmbatoo lépp mu jariñ leen ci wet gépp ñu wax ko dégg la Ousmane ibnu Affan radiyallahu anhu tahurat qulubuna mhm. ma shabiat min kalaamillahi est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que ay su sunuy xol setoon talaab est-ce que duñ doyal mukk ci wax yàlla est-ce que kooku Cheikh Makhtar bokk la kii toj ji tayib alquran ñuy jàng alquran mu jàpp ne daa yàgg waaw wala daa gudd allahu akbar wala njàng mi doy na nañ wax leneen nañ def leneen déedéet kon xol bu set la salafu saalix amoon moo tax daawuñu doyal ci alquran ci jàng ko te dina feeñ ci kanam mmh. daawuñu doyal ci alquran karim ci di ko déglu mmh. waaye daawuñu doyal ci alquran di ko jëfee dañ dañ daan jëfe bi sax bay wëri la ne luñ jëfee ndeysaan ndeysaan xool loolu est-ce que <laughs> ay ci saa si dina feeñ ci kanam allah ca saa si ñu daal di exécuté. jëfe aaya bi saasa. jëfee ko jëfin kay woo xamante ni lislaam da koy nettali ba ilaa yawmi diini. allahu akbar loolu dañoo xamoon dayoo alquranul karim waaye xam jubluwaayu alquranul karim. Cheikh Mokhtar bokk na ci liy firndeel loolu ba tey ci xam gu ñu xañoon xamoon dayoo alquran ak li ko yëkkati Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu daan wax ni damin damina allahu liman ittabaa alqurana an laa yadilla fi dunya wala yashqa fi l axirati. est ce que est ce que summa tala fa man ittabaa hudaaya fala yadillu wala yashqa nee na yàlla daa garantie ni képp ku topp alquran doo réer ci àdduna doo texee di alaxira mm-hmm. te loolu la koy firndeel mooy borom bi wax ni fa man ittabaa hudaaya képp ku topp sama njub gii di alquranul karim fala yadillu du leer du réer du gëlëm ci àdduna wala yasqa gu texee di àllaaxira est-ce que loolu xam day alquran ak xam xam xam xam jubluwaayam ndax da ngay xam ne kon alquran li ko fi indi mooy teg ma ci yoon ci àdduna alquran li ko fi indi mooy ëllëg yowmal qiyaamati ma texe loolu boo ko xamee day tax nga jëfe ko loolu day firndeel xam guñ xamoon dayub alquran Cheikh Muxtaar Abu Suleymaan Daaraani rahimahullah daraan wax ne inni la atluwa al ayata فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ولولا أني أقطع الفكر فيها لما جاوزتها إلى غيرها اسكي دران وخني ليلي ماي جانغ جن لاي القرآن جن قدي di ca xalaat ba guddi go jeex nee na guddi go ca topp ma nekkaat ci même laaya ci mu jeexati guddi ñetteel ga ma nekkaat ca gu ñeenteel ga nee na léeg-léeg sax ma def ko juróomi guddi ci jenn laaya rek di ko jàng di ko baamu di ci xalaat di ko jàng di ci baamu di ci xalaat nee na bu dul woo nag maay jékki ba yàgg bàyyi laay jooju ngir toxu ci jeneen mën naa continuer rek di jàng laay di ko tadabbur est-ce que est-ce que sama taal kooku xam na day alquran xam na ko xam na ko xam na njëriñ xam na ni loo gën a yàgg ci laay ji du tee boo ko jàngaatee wane noonu mu jariñ ci sa xol waaw ko bàyyi waaw maanaam jamono ji nga jàngee ixlaas qul yaa ayyuha alkaafiruun wala qul huwa allahu ahad hmm.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 qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad jàngaat di mu ko jàngaat ni defaat na ci man loola waaw amaat amaat ci yaa baja defaat ci man loola waaw bu ñett téemaa ko di ko jàng rek ba émission bi bu la neexee boo ko defee tiyaaba ji di yokk rek allahu akbar allahu akbar looloo bu ñu nekkaat genn laaya di ca nekk rek laay yi des ñu ngi fi bu ñu noppee daañu ñëw hmm. waaye nekk ca rek buñ ca nekkee lañ ca déggeeg lañ ca xamee gi yiw wañu teeru li ni am nañ ko ca ñëwaat ci seen xel ñu ne waaye nañ dolliwaat waay. est nee na juróomi guddi dama ko daan def ci jën laay léeg-léeg may maan mujj rek bàyyi ko dem ci jëneen. est-ce que. Ahmad ibn Abi euh, Ahmad ibn Abi al moom it daa wax ni. inni la aqra'u al-Qur'aan fa damay jàng al-Qur'aan léeg di xool ci jën laay mel ni laay ji daal dafa ëmb sam xel mi damay mel ni ku gëlëm ci biir laay ji. Mm-hmm. ndax njariñ yu rëy yi ma cay gis. ndax leer gu bari ga ma cay gis tuyaaba ju rëy ju bari ja nga xamante ni da cay am ma di ko ci bàyyi xel nee na damay mujj jom mi waaru ci ñi mokkal alquran al karim naka la ay nelaw naka la ñuy yàlloore allahu akbar ne ndax léegi dama ko xam ne sax man waaw ku ndax war naa yàlloor ci àdduna si ndeysaan moom lii la yàlla def ci dënnam ak yiw yu ci nekk lim ci mën a fàggu wërta mën a nelaw ci àdduna ba yàndoor allahu akbar mën a nelaw ci àdduna ba yàndoor nee bu ñu xamoon mu teg ci ni واما انهم لو فهموا ما يتلون بون خم خام لي ني جانغ خام دايوب لي دي بانيهو تي القران <laughs> دي تي ديوك سين بروم سبحانه وتعالى لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا الله اكبر جمن توتي دارت داخ بيت لين يالا جوخ تي القران الكريم شيخ مختار ني خامون نان دي القران خام لي الله لول looy taal ak tom ko xam nga Cheikh Mouhamed euh, alquran ni nga jox sànq. Mm-hmm. yow boo wéetee fenn léeg-léeg. Mm-hmm. xam nga léeg-léeg nga woo ma rek. du ñu aaye. ñu wax ci lu yàgg. Mm-hmm. génn ci yoo xam ne mën naa am kenn jàngaluñu ko. dañoo def teewlu maanaa yi muy rot. da alquran dafa bokk nekk wax yàlla. mu tax saa boo ko jàngee mu yeesal dala ci yow. est-ce ko jàngee dana yeesal dala ci yow. exemple bi moy pa ba amoon dom ja hmm dal ko jox ak ab pañe pañe bu don jënde këriñ hmm ko dama rotal ma ko ci géej gi hmm. wala ca dagga hmm ah xala bi dem sa bu dugalee pañe bi ba ba ci dom dom ndox mi fees rek bu jëkkatee lepp sotu ko mu def ko lu yag bu daal di ngaa bal pañe bi ñu ko bay ki kenn mu ci rot do na amul benn njëriñ fek da ko don wax ne ko sa mu bari mi koy def da ko don lool bay bi bay bi nga am na ke yow ba nga yob pañe bi nu melone daa daa ñuuloon kukk ndax këriñ gi léegi nu mel mu ne ko daa wax tàll mu ne ko loolu alxuraan def alxuraan boo ko jàngee même boo xawli wax <laughs> mooy mënoo ko yóbbu te ndox mi indi peñe bi indiwul ndox waaye jëli na ak set ak set la fa jëlee alxuraan boo fa jëlewul boo dalay fóot dalay fóot léegi nag mag ñi xamal loolu mm-hmm. dañuy xam ne xam nga Muhammad jàpp benn aaya di ko takkaraar mm-hmm. lu mat xisib mm-hmm. mook jàng xisib ñoo tolloo tiyaaba <laughs> nga doog a pare ci aaya jooju rek jëlaat yeneen laaj. ndax arafu alxuraan bi moom boo ko jàngal fukki yoon jot ñu di bindal la ko tiyaaba yi tiyaaba téeméer yoon. allahu akbar eh, am na genn góor gu wax ne. wa mm-hmm. aayatun. waaxidatun tudd da ne. benn aaya alxuraan. Mm-hmm. bu ñu tadabbur. Mm-hmm. tadabbur gu set. moo gën xatma bu amul tadabbur. jenn laay alxuraan juñ jàng te set ko. moo gën kaamilub alquran bu njàngati seetantal moo ko gën nee na allahu akbar xamul tax alquran lii tax nga jëriñ ji ba hmm. seetantal dëgg la anzalnaahu dana ñëw kon baax na léegi sama taalib bi mooy mag ñi ni ñu xamal alquran bëgg ko hmm. ba Seydina Usmaan ne bu suñuy xol set laaboon lu hmm. ñu suur ci alquran law tahurat qulubuna ma shabiat min alquran loolu ay wax la ay la kon ku alquran di déranger sa xol am na problème ku ci mënta jàng lu bari. Hmm. sa xol am na problème. Hmm. ku alxuraan neexut ci yow. Hmm. sa xol am na problème. kon daa la fi xam ne alxuraan neex ci moom. mu xeex ak bokkanam. boppam ba yëg ne daa moo ko dàqal wax yëpp. su yëgee loolu rek tàmbali naa am xol bu baax. yàlla xam na ne ki xolam muy muñ ci di mu koy déranger bu mu soo da koy bu yàggee mu bëgg ko yàlla sallam da al qulubu tasda. tasda kama yasdaw al hadidu ila asabahu. a ma maa ji laa allahu dikrul mawti wa kasratu qiraati qiraatu quraan est-ce que maanaam xol bu xomaag yonent bi ne ne li koy xacc li koy raxas ba mu set wecc mooy di fàttali ko dee ak di jàng alquran allahu akbar loolu leer na <laughs> Cheikh Moukhtar tomb boobu mooy suñu tombum ñaareel ci as-salafu ma alquran yaani kasratu qiraatihim lil quran est-ce que est-ce que xam gi ñu xamoon dayam alquran daa tax dañ daan jàng alquran jamono ju nekk di ko jàng ci lim boo xam ne Cheikh Mokhtar danga naan ndax lii xaj na ci 24 heures nit. waaw waaw. te effectivement xaj na ci. Mm-hmm. léeg-léeg ñun la diw daana jàng nangam xisib ci alquran nga ne waaw moom waaye gis nga boo dogoo ci sa borom subhanahu wa taala mm-hmm. man ci sama sama pareguma ci yóbbu yóbbalu màkk bi xam naa ne mm-hmm. ah, waaw waaw waaw <laughs> li màkk si la waxoon ku jóge màkk day bëri wax mu ne nañ koy laaj lu bëri maanaam euh, bokk na ci li ma ci jàngate mooy barke bu yàlla xam na ne damaa bokk na ci jaamu yàlla yi nga xam ne yéene woon naa ko fa def mooy màkk moom fan ya ma fay def lu mu néew néew naa fexee amub xatma mhm. ab ma fa jàng ci bu lenn ngant amut moom ci almasjidul xaram fa laa jullee julli juróomi fan ya ma fay def bi ma kiiyee lu mu néew néew bis bu nekk war ngaa jàng fukki xisib wala lu ko topp mhm. waaye gis nga jëmmi na dox ci otel otel bi ma daloon jugee ci otel bi dem ba àgg biir masjidul haram ab xisib laa ko defoon. est-ce que est-ce que. wàññee ko masjidul haram ak siwaat ci otel bi ma def ko xisib. est-ce que. loolu julli juróom yi fukki xisib la. waaw mu yor sëkk ibar sëkk waaw ibar sëkk bokk sëkk. bokkul rek toog ci xaram bi am wax tuuti jàng. jàng toog ci sa otel am waxtu tuuti jàng. waaw benn. nga xam day gis ni diir bu gàtt maanaam 24 heures bi da nga ci mën a am lu bari te du la yàqal yeneen yi. non ñàkk kii la ñàkk gëm la rek Cheikh Mouhamed ñàkk jaayante la rek. as-salafu saalih dañ daan jàng alquran lu bari ndax dañoo yëgoon ni fi leen yàlla sant julli ba jox ko dayo di ci sonn sant leen fa koor ba jox ko dayo di fa sonn sant leen fa azaka ak jox ko mbokk fa la leen sant jàng leen alquranul karim utslu ma uxiya ilayka min rabbik wala min alkitab innama umirtu an abuda rabba hadihi albaldati alladi xaramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimina wa an ndigal loolu dañ ko bàyyi woon xel tax dañ daan jàng alxuraan lu bari Cheikh Mokhtar waaye mhm. rawatina ci weeru koor ndax lëkkaloo gii may junj ni amoon na ci mhm. weeru koor gi moom daanaka dañ daan jàng alxuraan lu bare bare bari dañ daan wàccu kaamil usbu bu nekk ñeen ñi daan ko def par ñetti fan waaye bu weeru koor ñëwee daanaka bis bu nekk am na ñoo xam ne guddi gu nekk njàngub kaamil asalafu saalih noonu lañ daan def al aswad ibn yazid rahimahullah bokkon ci njabotu talib Abdullah bin mas'udi radhiyallahu anhu neena mom moom Aswad ibn Yazid mom kon da dan jang alquran juróom ben fan yu nek xana lolu bis bu nek fuk hizb ak ñaar waaw juróom ben fan yu nek wala bis bu nek fuk hizb fuk hizb ba bis bu nek waaye bu ramadan masaana ñew da dan jang alquran ci ñaari fan yu nek eske eske ba xam nga kon bu wéru wi fuk fukki kaamel ak juróom la am fukki kaamel la waaw ci bir wéru ramadan xoolal lool loolu boo ko waxee fii nii mën naa téye gémmiñam waaw te mën naa nekk nag. <laughs> al imaam Qataada rahimahullah ab taabi'i la woon déggoon alquran lool. lii liiral téere tafsir yi da foo journée da gis ñu am qaala Qataada. waaw qaala Qataada ci laay yi. lu ko mayoon ci laay yi mu taaliq ci taaliqaat yooyu ba firikati alquran yi jamono ju nekk ñuy dellu ci ay waxam ci dégginu laay yi bokkoon na ci xam dayoo alquran te di ko jàng lu bari. jàng lu bari waaw déglu ko nettalil. moom danaan jàng alquran juróom-ñaari fan yu nekk waaye bu ramadaan masaana ñëw xatama kulla thalaati layaali waaw bis bu nekk ñaar fukki ñetti fan yu nekk mu jàngub kaamil bis bu nekk ñaar fukki xisib loolu nag mi ngi ko jegleele woon ñaar fukki fan yu njëkk yi est que maanaam bu koor fukki fan yu mujj yi masaana dugg nga xam ne yonent da ci daan gën a takk laxasaayam moom it daan takk laxasaayam ci njàngum alquranul karim fukki fan yu mujj yi moom bis bu nekk kaamil la ko jagleeloon allahu akbar est-ce xoolal kooku. waaw sam xel bu mu ne xanaa daawul def dara ah kay. moo taaliq taaliqaat yu bari yooyu ci laay. waaw waaw waaw moo koy waaw dëgg la dëgg la. yow njaboot. yeneen activité daan julli farataam yi daan def lépp waaye boole ci daan jàng alquran ci lim bii Cheikh Muxtaar. Aboubacar Shu'ba ibn Ayyash radiyallahu anhu di woon kenn ci jànkat mm-hmm. ci qiraatu Aasim. Mm-hmm. bi yàlla dogalee mu. tëdd ci lalum ndee est benn sëram daa toog ci wetam xool ko yërëm ko di jooy allahu akbar mun ko loo jooy danga maa ñeewante mun ko waa mun ko na sa xel dal sama ruq bee ma toog daan jàng alquran al karim jàng naa fa thamaniya asharata alf xatma dix-huit jàng naa ko ca barab bi ma daan toog di jàng alquran al karim allahu akbar <laughs> waaye ñii ñëw alquran ay jàmbar lañu woon al imaamu Shaafi'i rahimahullah déglu li ma la waa jox Moxtaar xam nga Shaafi'i moom kenn du ne xanaa deful woon dara lu dul jàngal Alxuraan. Eh, ndax am lañ ko askan ngir waaw <laughs> nga xam ni téere yi dañ naan yi moo ko bind ñii ay taalibeem ne moo leen jàngal kon mu ngi woon ci leneen ci jàng jàngale geneen waaye daraan wéet di jàng téere borom bi subhaanahu wa taala imaamu Shaafi'i rahimahullah weeru koor gi daraan jàng 60 kaamil. nga ne lan. juróom benn fukki kaamil loolu mooy bis bu nekk ñaari kaamil. la kaamil waaw. bis bu nekk ñaari kaamil. laa ilaaha illallah. alquran daa wax ne fii daalika falyatanaafasil mutanaafisuun. al imaam bi mu yëgee loolu. dañu Shaafi'i mii kat lii muy def lu baax la dinaa ko jéem a tax moom it ba koor ga ñëwee mu tëju ci bar ni ma ne dina am 60 kaamil ndeysaan ba ñuy war a fekk mu am 59. allahu akbar allahu akbar. 59 kaamil moom it. allahu akbar ah, loolu loolu loolu al imaamul buxaari rahimahullah moom daan def bu ramadaan ñëwee bëccëg gu nekk mu jàngub kaamil guddi gi mu naafilaa eh, ñaar fukki xisib nga xam ni kon vingt-quatre heures dana fi jàng ab kaamil ak sulus eh, allahu akbar bëccëg gi day jàng kaamil bokkul ak li muy naafilaa guddi guddi gi moom ñaar fukki xisib maanaam bis mu nekk kaamil ñetti fan yu nekk kaamil bis bu nekk kaamil ci bëccëg gi ñett fa ne nag kaamil ci guddi gi noonu la ko daan doxali moom limaamul Buxaari waaw Buxaari moom ndax dañ wax ba xam def na ah Buxaari kay gone xam na ne nga xam ne nangami at ci la doon dajale saxiixul Buxaari ak du ko segg ba ñëpp jàpp ni kon xanaa dundam gépp loolu la ko def ñun la kaay daana jàngal Quraan ci waaw <laughs> ak imaamul Buxaari rahimahullah ak yeneen téere yu bind al adabul mufrad ak yu ñu deme lii moo taxoon seen xam-xam barke mm-hmm. maanaam seen at bariwul woon léeg-léeg ñu wax la ci koo xam ne da ngay def ni na téeméeri at wala juróom-ñett fukki at fekk ay ñett ñeent fukki at waaw 40 ans mais alquran a barkeeloon seen jëmm barkeelaal lépp nekk jëmm ji xam-xam baag waxtu waag euh, nu mu tudd dégg gaag yëkkati tur weeg lépp Cheikh Massar al imam mu ngi noonu euh, al imam euh, abu abu zannaat day nettali نينا كنت أخرج من السحر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أمر ببيت إلا وفيه قارب اسكي نينا بو موسى نجيل نسمى كر نجيل جمتي جاكا يونتي صلى الله عليه وسلم كر غوم رومب رك ديغ فكو ييكتي اسكي نينا داو ما ديغ رومب السلف دال دانيو فونكون جانغوم القران شي مختار لول دان كو جانغ لو بري بري بري بري لو تعلق في تومبو دوغو اه شي محمد لول دي moom liñ ci war a jëlee rek ñun. mooy gën a taxawaat. ci fonk jàngal Alxuraan. te gëm ni ashxaal yii ñu nekk. waruñu war dox war dox su diggante jàngal Alxuraan ndax. sama mère kenn ñu bari ci ñun waxtu ñu ne ci Facebook di ko def ci internet bi. xaju ci fukki xisib. wallaahi wallaahi wallaahi da ko yëg nag. li la koy xamal mooy boo toogoon beeru di jàng ñaari xisib wala ñetti xisib wala ñeenti xisib. waaw nga nga takk diir diir bi ko jàng. nga pare xool diir bi nga bi nga di nga xamne bo boo wàññi woon conseil bu baax baax mën nga am ci alxuraan ju bari dëgg la de am erreur defo dara ma nga gis ben bind bu gaay di tass ci internet bi neena jenn way da laaj mama ne ko waaw lan moo nekkoon secret nan la nit asanaf sah nan lañ mënoon a jàngi lu li ñuy jang ci alxuraan karim mon ko xana ni ngeen mëna sa sëgg ci téléphone kep wal ko deug xam ni lela gis ko xam deug mën naa sëgg téléphone 40 minutes dina yow do wax ak yow xam ne 40 minutes bu ko defee ci kaamil bi dana jàng lu néew néew ñetti xisib yu leer naññ yoo xam ne jàng sax du du gaaw loolu. Cheikh Mohamed loolu. li ci dégg rek mooy salaf yooyu. dañoo war a jéem a roy seen i tànk. liñ koy royee nag mooy. alquran ji ñu del siwaat ci beneen bi mooy dana yombal jàng mu gaaw miin alquran wala mokkal ko alquran na loo gën a jàng gën koo miin loo ci gën a nekk gën koo mokkal loo ko boo ko mokkal def loo gën a jàng mu gën a mokk Eh, ñàkk jang bu alquran gi tamit day wañi barkatu ci dund gis nga cheikh dundu gu barkal dayo mën xam mhm. fi man nga départoo nit fi ngeen jëm ndar mhm. ngeen départ fi 6 h du matin mhm. nga ag ndar 9 heures tok bu 2 h nga door ko gis mu do aksi boo ko laajee li ko téye woon bu peer ak Eh, oto buy sofeek xam na lu koy indi yàlla yàlla la neex rek boo yàlla naa la barkeel du dem day mm-hmm. waxtu bari waxtu sakkan ci dox lu gàtt fi ne dund gu barkeel mm-hmm. du nekk looy gis waaye da koy da ngay waxtu ci lu bari bari bari te loolu alxuraan koy may si ki xëy ubbee bisam jàng alxuraan mm-hmm. ak ki xëy bisam rek dem duñ kee mooy gën a barkeel ak dund dama koy wax xale ni leen ba alxuraan du bari day barkeel ak dund <laughs> li nga wax ci Buxaari wax ko imaam Shafii mm-hmm. lépp li muy tegtale mooy dund gu barkeel sa dund nag barkeelee jaam yàlla yu baree bari da ciy xaj mm-hmm. yu bari da ciy xaj mm-hmm. bu bu ci jaam yàlla yu bari xajee rek mooy yàlla yu néew xam nga kiy jàng ci bis bi ab kaamil kooku mu kenn ko bindal benn bakkaru jëw da talu ko ndax xay la koy dog wax soxlaa koy dog ak julli ba pare nekkaat ci te loolu mën naa nekk. mën naa nekk wallaay wallaay. yow léeg-léeg nga toog jor ma soxla wax ak kenn. wallaay daa bëri wax rek waaye boo boo boo wul wax ma ngaa toog yaa doo wax ak kenn ndax amu waxulu ñor. Mm-hmm. da ngay léeb boo mel ne man xam ne da ngay nekk di léeb rek gars yi di ree loolu nga denc léeb yooyu. Mm-hmm. gësab kaa surtout bu koor gi jege see. bu koor gi ñëwee mm-hmm. nga yokk sa njàng alquran. yokk sa wéetaay ñi ma wéetaay. ñi ma wéetaay. waxuñu la bul liggéey mën ngaa liggéey. mais liga mu Muhammad, Cheikh Quran, te mokkal alquran. man na Quran. liggéey ba plaza alquran. bu dee borom place man na man na naa di jang ku ñoomu jaay la. bu dee koo xam ne alquran lim ci mokal na koy jàng su jamu tam daam waaw da bako jakk ni len ku mokkal xulul ahad. so soo jang ba son ba son nga ba ci. defal non bu comme li mm-hmm. euh, li nga yow. ne ci jàpp ne ka wàcc ka alquran wala li nga ci mokkal dee ko jàng. nekk jugum la laas. faqra'u maa tayassara. maa tayassara alquran wax. ma ne yàlla tegul kenn jàng xam bu kenn jàpp ne am ngaa dem al eh, naan sabab ba jàngul woon nag damaa niwoon loolu du du ko foofu de. foofu kenn du fa loolu. Cheikh bi ñuy jàngat ci as-salaf ma alquran mooy tadabburuhum alquran. est-ce que. wa hathuhum alayhi. Uhuh. bu ñu daan seetantal alquran bu baax nag ak da ca soññee. Uhuh. ka dañ daan am qiraatu ajr wa thawab ak qiraatu mooy la gëna bari mm-hmm. ndax tuyaabe yi gëna bari mm-hmm. ak qiraatu tadabbur mm-hmm. njàngum settantal bo jangé bari guñ nan bari jàng alquran da ngay gis ni qiraatu ajr wa thawab gi lañ doon sakku waye bo jangé seen tadabbur nañ ci daam soñu da nga nan ni am amon nañ kamili tadabbur tamit waaw Cheikh Mokhtar yonent sallallahu alayhi Wasallam mi magi mag ñi waaw <laughs> mag mu mag mi mag mu mag mi waaw ci moom la ñëpp jàngate dabburul quran mm-hmm. est-ce que est-ce que su ne Aïcha nee na radiyallahu anha qaama annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa bi ayatin min alqurani layla est-ce que nee na guddig bi di julli taxaw jenn laay rek doon jàng allahu akbar di ko répété rek di jooy di ko répété rek di jooy di ko répété rek di jooy allahu akbar xoolal keroog ba mu ne Abdullah bin Mas'ud jàngal ma alquranul karim mm-hmm. mun ko aqra'u alayk wa alayka unzila waaw ci yow lañ koy jëlee ndax yow la ko yàlla jox nga bëgg man ma jàngal la ko mun ko dama ko bëgg a dégg ci keneen allahu akbar waaraatekat yi nañ jàng loolu dañ ko jàng bu benn waaraatkat jàpp ni fu mu dem daa war wax ñëpp di déglu lay dem di déglu léegi lay déglu léegi rek day déglu waay ah waxal ci kaw waaw ah, day déglu léeg-léeg. dañoo day déglu. waaw boo xutba ba pare tas sam xutba pour gars yi déglu ko lu xutba bi ñu ci des. waaw kay yow it waaw. ndax nga mën cee jëriñu. ndax mën cee jëriñu booy déglu di jëriñu. waaw wallahi wallahi déglu di jëriñu. kon yonent sallallahu alayhi wasallam loolu la jàngale foofu. uridu an asma'ahu min ghayri. Mhm. Abdullah ibn Mas'ud nee na may jàng di jàng suratu eh, an-Nisa ba agsi ci laaya ja fa kayfa ida jina min kulli ummatin bi shahid wa jina bika ala haulai shahida fekkente baa ngi settanta loolu di xalaat bu ñu taxawalee xeet yëpp indi aw xeetam pour ñu seede allahu di xalaat bu ñu taxawalee aw xeetam yëpp indi ko moom pour mu seede pour mu seede waaw <laughs> nee na mu yëngal sa ab tànk ma sëggi mun ma xas bëgg nee fekk rango ñaa ngay tuur الله أكبر لو كجيلو تدبر تدبر تدبر تدبر كن صحابي السلف الصالح تعمل كي ينتبه كلا لن يكون عبد بن زبير عبد بن عروة بن زبير كن رضي الله عنه دون ست أسماء أبو بكر نح زبير بن العوام ونكون دب أسماء مغوك نينا موم عبد بن عروة بن زبير مومي دما لك سما مام أسماء نيكو صحابي ينتبي لن مو نكون سن حالة إذا سمعوا القرآن est-ce que waaw bu ñu déggan alquran lu nekk seen xaala mu ni seen rangoñ tuur seen yaram daw comme ni ko alquran waxee est-ce que allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabiha mathani taqshairu minhu juludu alladina yaxshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah nee na noonu leen alquran mel ne daal boo bëggee xam seen xaala bu ñu daan jàng alquran di ko wala ñu koy déglu mooy ni alquran wax rek di jooy seen rangoñ di daw ñuy daanuy jénn est-ce que Eh, Abdullah bin Abbas radiallahu anhu moom it ba tey ci settantal alquran ak soññee ci mhm. daa wax ne li an aqraa fi laylatin suratan atadabbaruha wa wa ufakkiru fiha ahabu ilaya min an aqraa alquran xam naa wax jii la sunu maam eh, Ahmadou Bamba di dëggal ci waaw ci baytam boobu waaw nee na jàng génn laaye ci génn guddi di ko baamu di ca xalaat di ci tadabbur moom a gën gënal ma jàngub kaamil ci guddi te àndul ak tadabbur àndul dëgg la باتاي آه، ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله دي برم خيركم حديث بوبي واه ديسان موم مكو نيتالي تي عثمان بن عفان واو رضي الله عنه تخ ديسان موتوم بي جانغال ريك ديسان با نان كو غور غي ماغي ليغي غور غي توغاي بي ياغنا غور غي ياغ غا جانغال سا طالب يي صاف نيك ني ني سيرين ليغي من ما اقعد هذا الذي اقعد اقعد هذا عبد الرحمن السلمي نينا ñenn ci saxaaba dañ daan wax ne laa sabila ila fahmi kitaabillahi illa bi qiraatihi bittadabburi wattafakkuri wattayaqudi wa xuduri alqalbi fiihi mm-hmm, mm-hmm. wenn yoon moo am ci dégg alquran al mooy di ko jàng di ko settantal di ci xalaat di ci waaru te teewal ci sab xol mm-hmm. mooy settantal nee na ñeneen ñi am na ci ñoom ñu daan wax ni man asaabatuhu barakatul qur'aana barakatul qur'aani mm. ruziqat tadabburu est-ce que képp koo xamante ni yàlla da koo jox barkeb njàng alquranul karim dana ko wërsëgaale muy settantal ay alquranul karim te képp ku yàlla wërsëgal al alquran du ko xañ mukk jëfe alquranul ko ah, ah, ah, est-ce que maanaam kuy jàng alquran boo àggagul ci settantal mën ngaa bañ agsi jëfe waaye booy agsi settantal di jëfe jëfe waaw waaw mooy ak seetantal di jëfee kon tadabbur mooy joxe ak seetantal ibnu taymiya rahimahullah moom it daan wax ne alquranu man tadabbarahu tadabburan tamman tabayyana lahu istimaluhu ala kulli al ahkam nee na ku seetantal alquran seetantal gu mat sëkk dana xam ne yàlla bàyyiwu ci dara est-ce que maanaam lu waay gën a settantal alquran borom bi di ko gën a ubbil bunti leeri alquran yi mu koy gën a jariñ ci biiram waaye di ko gën a ubbil bunti xam-xami xam alquran yi mu ci yokkub xam-xam kaamil bi yokku wut de déedéet faatiha ak naasi la waaw waaye dangay gis ñaar ñu ko mokkal kii xam ci lu ci kii xamul waaw wattaqullah wa yuallimukumullah tadabbur mën nañoo bokk sax fu ñu jàngeek fu ñu génneek diplôme yu am ñu ne ñoom ñaar ñëpp doctorat lañ am ci kulliyatul quran ci kada waaye bu kii waxee rek xam ci lu kii xamul mhm. tadabbur kii day tax yalla ubbi ci ay leer ak bunti xam-xam Cheikh Makhtar kon yooyu yëpp day wadani ni asalafu saaleex ñu daan tadabbur alquran lañ waye ñu ko daan ñu ci daan soññee lañ gën tax ñu def ci. wa Cheikh Mohamed lolu nga wax ci Abdal Masud xamne mo mo moo moo la def jàngaloo bu jang sotu nisaay hmm bag ci la joju yonent bi salaam ne ko xasbuk. mu mhm. xol ko fekk deux cent cinq wutee xëpp la ngoo di wacc hmm tadabbur day tax sa ruh dund alxuraan yëg ko xol bi yëg ko te li wax ni ku am ku yàlla dimbali nga am barakatu tadabbur rek te am li nga am barakatu jëfe te que taxal boko jeffe rek mu yok la xam-xam deug la waaw jeff da la yok xam-xam man amila bima alima utiya ilma ma lam ya'lam ku jeffe li nga xam da nga xam ci bir jeffe gi lo xamul won ba nga ci la nga jàng waaw deug la waaw euh li xam nga Ibnu Taymiya mhm. rahimahullah ba mu dajeeg Qatar mhm. jeex boobu wax nañ ko solo lool mhm. bis ba mu fay dem dañ ko ne bul dem ndax ñoom mer nañ mer boo xam ne ak yow lañ la ñuy rëbb boo demee ah, dafa ne bu jub xayma gi taxaw daan ne fallahu xayrun xaafida wa huwa rahim loolu la wax daal waaxu dugg bu ko waa gis waa daal tiit au lieu que mu ragal dafa ragal mu dem da waral ittifaqaat yi mu wax yëpp mu def ko yi mu wax yëpp mu d'accord ci saasa nga xam ne loolu bu da ko wax ci ñaar pas-pas ak ngëm parce que alxuraan yi nag Cheikh Mohamed da koy gëm loolu moom tam war laa nangul waaw waaw yor na de waaw sëñ ma la tudd maa sax ni ma dama ni ma ku jubóog sa alxuraan loo ci bëgg am ko ci mhm. da nga jubóog moom nag man ma lu xam nga ko mhm. mu ndigalam ñu est-ce que est-ce na boo déggee sax sam naan yaasin li maa quri'a day fekk nga jubóog alquran. Mhm. jubóog alquran nag Cheikh Mohamed. Mhm. mooy tadabbur ko. Mhm. di jëfe. dëgg la. tadabbur ko di ko jëfe. su ko defee li xaalu salaf. nga xam ne kenn ñoom daan jël benn aaya. di ko takkaraar. di ko takkaraar ndax yëggum nit ci biir ay yëf loolu même yow boo xalaatee léeg-léeg mu dal la ci aaya bi alxuraan war nga koy jàng mel tey ko mos a jàng man am na benn aaya boo xam ne bis dama man am na foo defee waxtaan daal man maa nga foon ngan yàlla dane fala uqsimu bi maa ngi gën ci lépp lu ngeen di gis ak lépp lu ngeen gisul te li gisul ëpp li ngeen gis weer na de. daal ne innahu la quraanul karim. loolu laay ji. est-ce que est-ce mooy. Mhm. alxuraan ji tedd na de. allahu waaye yàlla bu ne alxuraanul karim jëru alxuraan yàlla lu bàyyi ko tam day tedd. Mhm. bu ci boolee di ko giñ. <laughs> Cheikh Mohamed loolu boo defee tadabbur. Mhm. xam ne alxuraan jooju ku ci mooy. daa la wàll tedd nga jooju wàll la. teraaga jooju wàll la barke boobu. te bu la wàllee barke bi da nga mën a jëfandikoo yàlla sant. damay faral di wax ni ko wax daa waaw. ويال تبهم <laughs> ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم غني كريم كم كيوني ونتيد موي جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين الله أكبر كم كجوخ تيد موي ننتبه صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر مم جمي وحجي تيد انه لقران كريم في كتاب مكنون لا مسو لولا تخيت بيكو يور غنا تيد كنتم خير امه اخرجت للناس جميل بير خيت وو كوكو تي موكال غن كودل يو خير خير من تعلم القران آه، ما شاء الله شيخ محمد والله لي وخني احنا لول الحمد لله نحن لول تي مانا ديغلو تخ ني غنا يتيو القران يتيو غني غيسو رك كين غنا فكا تولو سي نيفو دخل نونا maanaam dafa am ñoo xam ne. Mhm. dañoo def li ñuy wax euh, dañoo découragé. Mhm. découragé mooy nekk mag. Mhm. yéen di jàngoo alxuraan mokkul ko gaa découragé bàyyi. déedéet. demal nga jéem. xam nga da nga wax naan am na ci salaf yi ñu daa wax naan. Euh, yàlla sant ñu yegg. yàlla sant ñu dee ci yoon wi. <laughs> dee ci yoon wi rek. waaw. fii laa taxsabanna alladhina qutilu fii sabilillah ci biir yoon wi la wax. fii sabilillah amwaatan bal ahyaa'un wax fii la wax daal nekk lu xorom loo xam ne ba léegi umra jee ko indi. màkk ah, ah. <laughs> Ah. màkk daal moom sàppal dafaa dese rek. est-ce que. Euh, damay wax bi ma fa jógee damay waxtaan ak ay bokk. ñu ñoom it mas nañ faa dem. Mhm. ñuy wax boo ñëwee Madina ba war a nuyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. est-ce que. ñu ne buntub jàkka ji buntu ba ngay duggee ci jàkka ji tam tudd baabu salaam. Mhm. fa ngay jaaree pour nuyu yonent bi sallallahu alayhi bi ñu waxee loolu xam nga ni ni ñu organisé léegi baabu salaam moom dañ koo tëj dañ koo upp sax nekkatul buntub dugg ci jàkka ji. waaw buntub dugg nuyu ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaw waaw waaw ñu waxee loolu mën leen baabu salaam sax day ña jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kese fay fay jaar. sëñ Adama Seck mu ci amet yuuxu. day yuuxu kay. ni ma lu rëy nga wax. waaw. baabu salaam ña jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo fay. képp fay jaar waaw. aljuma ji topp ma fekk Oustaz Mbacke si la ci Sud FM ñuy waxtaan ba ma nettali ko lii. waaw li ma la nettali ma nettali ko man wax nga dëgg de te booy génn nga génn ci baabul baqaya. oh. ma ne mbir mel ni lu bees tàq ci man. allahu akbar ma ne ko loolu li muy mooy boo duggee ci baabu salaam jëm ci yonent sallam ci sunna si yonent lu dul da ngaa dem bàmmeel. war a foo jeex bi génn. baabu dem <laughs> te génn diggante boobu. waru ko fa génn allahu akbar Cheikh Makhtar xam naa ne waxtu wi xam nañu njat dañu jël benn tomb rek kon mottale ko waxtu wi mooy suraatu istijabatihim lil quran asalafu saalih ñu fonkoon alquran lañ ci xam dayoo bi ñu fonkoon alquran lañ ci jàng bu bari ñu fonkoon alquran lañ ci di ko jëfee lu nu man waaye ñu fonkoon alquran lañ ci lu mu leen sant fa saasa fa saasa ñu def ko آه، عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نينا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بمواتي لا يجوجي كن يخ ابو ابو الدحداح الانصاري دا جيو تي صلى الله عليه وسلم نيكو يننتي بي يالا دا بغ نو لبلنتك موم منكو واو يا ابو الدحداح منكو يننتي صلى الله عليه وسلم جوخ ما صلوخو يننتي نينا يننتي صلى الله عليه وسلم تالل لوخو منكو من كات سما تول بلي may naa ko yàlla lebal naa ko oh daa di daw ca tool bi moom moom moom moom moom moom moom kii nu mu tudd. ab dax dax ab dax dax fekk fa umul dax dax. ah ah ko gënal gaaw moomatuma ko may naa ko yàlla. allahu akbar. tool boo xamante nii sag dund la woon sag njaboot dëkk fa. alquran wàcc jenn laay ñëw rek nga daal jëfe laay ji joxe ko. allahu allahu akbar dem seet la ne suraatu sijabati lil quran anas ibni malik radiallahu anhu nee na abu talha daa bokkoon ci ñi ëpp alali tàndarma ci ansaar yi hmm. abu talha al ansaar yi nee na waaye alalam yooyu toolu tàndarma yi bi ci gënoon bi ko ci gënoon a neex moo doon bay ruxa ndax da di tool bu barkeeloon lool waaye tool boo xam ne daa jàkkar xawoon na def nii ak jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jigee woon ko <laughs> yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg bu génnaan ci jàkka ji dafa daan dugg naan ca ndox ma lekk ca tàndarma ja ndox ndox mu neex laa moon tamit ca teen ba fa nekkoon. est-ce que. nee na bis rek Jibril ñëw daan yàlla yonent bi yàlla nen lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam abu abu abu talha ñëw ci yonent wax lii. mun ko waaw ko mën de sama sama tool bii ci wetu jàkk ci laa ci gën a bëgg bay roxaa jox naa ko yàlla. allahu akbar est-ce que loolu si Muxtaar. keroog ba ma jógee ca saqifatu bani saaida di dox ba yàgg mbokk mi ma ni ma fii muy ci saaxatul masjid fii nii ak lenn ci masjid ji fa la xaat tolloon est-ce que est-ce que est-ce que nañ ak yotu jaar sa saxaaba yi yotu sa jaar la mhm. lu mën am la tege na fi tànkam ak saxaaba yu baax yooyu Seydina Umar Xattaab gaa ñooñu sëñ bi loolu dafa neex de dafa neex trop trop. naa ci sunu eh, émission yu sëriñ yi màkk dund aay da ko da ngay dund siira. siira ngay dund. waaw siira dem ba ni saar la fii la ansaar yi daje woon bi yonent bi di waxtaane kan mooy. xalifa bi wuutu yonent moo koy wuutu. fii leen Aboubacar ak Omar fekk waxtaan ak ñoom ba ñoom fii la njëkk a jaayante ak Aboubacar. place baa ngi nii. waaw ñëwoon la ko. allahu akbar allahu akbar. Abu Talha bi lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun wàccee fii saa si dañu yonent bi. sama tool yëpp bayru xaalaa ci gën a bëgg may naa ko yàlla may naa ko yàlla est-ce que yonente bi ne ko dégg naa ko te nangu koy nangul naa ko yàlla est-ce que waaye maa ngi la koy delloo dénkal la ko yàlla lu ci ñore rek dellool ma ko ci say bokk ñi ko aajo woo allahu akbar xoolal siyaasatul islam yi waaw waaw <laughs> nga xam ne moom dana am tiyaaba ñaari yoon allahu akbar am na tiyaabay jox ko yàlla amaat tiyaabay dimbali ci ay mbokkam jigéen saxaabiyaat yi bi laayee muuraay wàccee fam leen fekk la ñu dagg seen i dara ci seen yëre muur ci seen bopp ñii muuroo bool yañ yoroon ak ndab yañ yoroon ngir daw uti muuraay ndax yàlla joxe na loolu ko ci kaw Cheikh Makhtar sahaaba yeeg asalaf salaf fii leen tolloon ci teel a wuyu alquran al karim waxtu wee jeex taaliqal ñu tëj émission eh, ci loolu maa ngi dégg benn bis sëñ Abdoulaye Sow di nettali ne Umu uh-huh. Salamata uh-huh. daa nekk ci këram uh-huh. kenn ci xale yi di ko létt wala di ko di ko firi mu jékki-jékki dégg bi ne yaa yoon yaa yoon yaa yoon naas. Mhm. mu ne déglu mu ne xale bi déglu xale bi ne ko ah jàkk waa jàkk lay wax mu ne ko bokk ma ci ma bokk ma ci naas. maa yow ci naas lañ bokk dañ déglu muy wax. ci lañ bokk maam ñoom dañ daan dégg yaa am ñu taxaw. baax lu la teg ci saas lañ koy jéem ñoom. parce que ñun da nga déggoon yaa yoon la dina am ne ñeneen lay waxal. Mhm. mel ne te nga dëgg waa jox la dina amul mu jàpp ne ñeneen la ñuy waxal moom kenn waxut ak moom te fekk moom la wax. saa dama ni man nga doon waxal bu ma waxee dara ci alxuraan man ko waaw yow. dara yàlla war a waxal di ko yàlla a waxal di. waaw ak sa bopp. parce que alxuraan jullit bi lay waxal te yow yaay jullit bi. am na koo dégg bëgg dem mu ne. Mhm. ñi jàngal alxuraan. Mhm. ci mhm. loolu nag Sénégal dañ koy peñ dañ ko ko waxati bu ko waxati <laughs> de. bari na ñu xam ma ne kuy saayee njariñ. <laughs> waaye ku ci xam boppam. waaw. أنا أنا أنا أنا أنا أنا non ترسي كرسي الطرف والنص بارك الله خلا سنتني سي رك ني سنت لين باخ جابال لا ني كين دولن غيس تكو غيس نيوما est-ce que. loolu ak jàmbaar la sëñ bi. jàmbaar la jàmbaar la kooku mooy suukar. waaw. ndox mu tàng muñ naan mu nekk. te kenn du ko tudd de. moo ko waral ataaya ji neex na fekk ataaya ji neexul de suukar see neex. wolof nee na mag bu dee daal lu tàng suukar saa. suukar saa tax. judul ak fiya yàlla yàlla fële defal leen toog fa jërëjëf. amiin yaa rabbi baarakallah jazakumullah xeyran Cheikh Makhtar kon as-salaf ma alquran a ngi noonu li tax ñu doon ko jàngat nag mooy li mu lëkkaloog alquranul karim te as-salafu saalih di mag ñu fonk fonkoon alquran lool daan ko jàng daan ko jëfee daan ko tadabbur waaye rawatina ci weeru koor ndax lëkkaloo gi ma am bokk yi li jiw a jeexal jugu fa weeru alquran lañ nekk yeneen émission ci kanam yoo xam ni ni ma leen ko waxee rek yépp day ànd lëkkaloo gi weer wee téere bi سين بقولون أبو طه محمد النجاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أواتيه سيان بي القرآن القرآن تري يلا بي تري بي لا يلا واتيه سيان بي